soo lijjanti sa bopp. waaw waaw mooy yoon tawfeex kay naas kay gaynde naas kay waaw mooy yoon rek waaw incha allah sama gaay fee lañ si kanam. feegu ma sax ngay vidéo sa yoon nekk gaa naka waar garaa bi taw fi gaa naka waar naa xew taw fi mbër ni la réewe gis la gaay billaahi yooyu lañ doon réewe gis la gaay may réewe non yooyu laa fa la yooyu a dee billaahi loolu ñaan ba sonn. yow loolu sa yoon sama. <laughs> bu ma damm nag. ñoom dañ lay bëgg bu baax a baax suñu waay la. yor la ñuy bëgg gaa. yor la ñuy la ñuy topp. sa combat la ñaanal. ku la ñaan loo ba sonn. sa waay sa yoon nekk. baax na doon Adama ñëw. gaa. yàlla tawfiq na salaamaaleykum. Dia. mais yow loolu neex ci Ama. waaw non Ama Dia Ama kan Dia. naa dafa neex xam nga dañ koy suivre di ko seeraan TikTok bi xam nga. waaw di ko seeraan di ko bëggee. waaw te borom baax la moom day ree rek. ah loolu moo ñu neex si moom. di ko ñaanal yàlla bu amee combat rek yàlla. tawfiq wala ñu koy ñaanal Ama Dia moom borom baax la Ama Dia. Ama Dia dañ lay bëggee. waaw yow sama waa naka dóor yi. naas def jàmm ah. tawfiq kay. yaa ngi si kaw. waaw dinaa si kaw combat. maa ngi koy. yaakaar.

saa waay da ngaa bugg lu yomb sax. ama jara man bu sa dana ama yar laa toog barke Serigne Touba ama ama jara mooy mbëru jeunesse bi barke Serigne Sall man dama ko gëm man heure bii bëree damay bàyyi su lu may def seetaan ko fu ne laa jógee nag si combat am barke Alxuraan damay jógee ba pare ndax jëm ji taxaw barke Alxuraan man dama koy bëggee parce que dafa doon ñëw sama naka dem jaay pièce jëg saa ci sottuma ko man laaj ko mu ne mu dugg na si moo tax fu ma nekk dama koy wër Ama Dia rek laay toog Ama Dia mécanicien la Ama Dia mécanicien la sinon man na ñoo ma koy jaay ma koy jaay pièce di ko dépendre di ko jox taw ak 2000 Ama Dia ngi nii waaw loolu ah? bu ma xoolee waaye léegi gis ndax danga kaa war daf ma lay bàyyi la laa lay def Ama Dia lu la may bàyyi parce que ma ne démb la woon quoi waaye démb loolu amul man waaw léegi booy defal ni defal ko te yàlla tax bul boo ko def ba pare di ko wax soo defee rek may defal ba pare di ko wax kay amul njëriñ yàlla na la yàlla defal jàmm. waaw bër mais bër dama naa la nag. maa la raw dinaa fi ñëw après. mais dina ma ñëw. waaw waaw combat bi kañ yow kan ñu ngi yaa mbër jeunesse bi dama bëgg la xëpp say bët bu baax. waaw askan bi yow leen bëgg. gis nga gars yi nu lay bëggee. gaan ah Amathia yaa fi ne waaye. ma catu <laughs> bu ma caatu Ama Dia yow. Ama naa siy jàpp yow yow yow maa tane. Ama Dia yow da maa tane. waaw la ma wuy ma waaye tane woo ma Awajo comédien naa si jàpp nga ne tane ko jox mu soqe ko. non da ngaa bëgg lu yomb sa waay nag bu def lool. ah. Awajo dama jox 1000 tey laa koy xam. gaar. maa ngi si jaamu. aw ja xam nga moteur bi moteur lan la. moteur ba moteur yi. moteur yi xam naa koy. bii moteur lan la bii semaine su. ah. semaine su la. bi ci topp bi la ko def semaine am. biiru semaine. waaw ça va man dofuma de. mais am na bii li ko def semaine laa bëgg xam. bii. boîte automatique la monté mais moteur bi CNC ah, la. waaw la ne automatique la. waaw xool moteur rek tegul ci oto la. Ah, man dofuma de. am na loolu xam moteur ba taay nga ne man. man may mécanicien. mécanicien bu mag. yàgg naa ñëw fii nag. fii kii laa doon ñëw. Ah waaw. yàgg na. fii mooy suñ place mais Amathia soo bëggee xam moteur bi nekk suuf xam na mi ngi ci état wala déet noo koy xamee. lii temps da ngay temps sans man da nga koy tourné. Uh-huh. waaw da ngay tourné xool. jo jox ko kële mu xooloon ban moteur moo fi baax. saa waay nag man damay takk nag. waaw soo ko defee mécanicien bañ bañu tax. waaw. Ah. xool doo xoolal waa ji ndax moteur bi nga baax na. kàlla xool ñu moteur bi ndax sax maa tourné ko. to ana kele bu ma koy tourné. ban kele moo koy tourné. xaaral booy bi nga kele. ak 22. nii lii 24 la de. non wax du bii de. DV6. ça va yaa may takkal nag. nga takk nag tourné rek ndax baax na. Woi lii baax na am na ngelaw du ma rey ah faaw ma songu leen di sama kër la yaa ngi nii sama waay nii waaw kii moom sama waay la waaw yo sama waay nga nak da nga tekki sa masque bi xaw <laughs> ma sikkim la xaw ma masque sikkim jam nga naan masque <laughs> yow jërëjëf Dieng. waaw yow sama waa. naaj na nga war. Balebu Diaw. la ñuy tournal benn émission mais mu ne fu ñu munti dem foog ñu ñëw ci góor. sama waay la sama xarit la. kan. mu ne lan loo wax Amady. waaw dañ leen tegal bio Dubaay yàgg kii tëru. waaw waaw. dama ne bu ko bàyyi moom. waaye non tegaluñ ñu ko de. ñu ñaan Dubaay de yow boo laalee Dubaay dem ñëwaat. nga xam ne yoroo état bi de. moom miin na Dubaay moom. moom miin Dubaay mais Ama Dia mi bu duggee Dubaay génnaat day Bou Siteu day xam ni amul dara Dubaay. waaw Bou Siteu nee na Ama Dia su demee Dubaay moom moom sax bi muy doog a dañ kaa teg si axe ku dem dañ lay teg si axe Ama du ngaaka de. <laughs> bàyyi leen la. Ama Dia boo ko ñëwal poste xamu fi nga nan du ngaaka. non bàyyi kii sax ñu fi lay ñëw di fi moo kii suñ client la sax du ñoo koy kii fi mu ñëw nii xam na fi de waaw léegi mu ni fii du poste nee na fii daral ba non kii sa du ñoo koy jaay PS. waaw mais fii poste yaa fi poste la kii xam na fi mu ñëw fii place am la. ma yaag fi ñëw. ma ne a nangu si sama loxo. Abba laa ko bëgg a nangu sama loxo téye ko kii. tourné nangu. Abba buy fere si yow. buy fere Amadia moom laa bëgg. waaw war man maa ngi man man doo ma la jox 1000 francs yor naa lépp mi ma jox ma la 1000 francs waaw ma la ëpp 1000 francs waaw ama sax mais góor sa <laughs> diggante ak ama jala la ama dañuy yàgg waaw yow moom sama waay la mu nekk mécanicien mhm. suñu borom dogal moo koy jaay pièce wax dëgg fu ma romb rek sànni ma ay xew yu dul jeex <laughs> mais moom suma joo la ah. maa ngi koy ñaanal nag combat bi ah, ñu jëm ah, ak luñ mënul xam nga combat am diggante wu bu baax bu baax mais combat bi mhm. saa nga combat la du combat mhm. sa bopp xam nañ ko bu baax a baax yàgg nañu ak moom sama que làmb làmb moom moo ñu boolee ñu xamante mais dañu gis ay qualité yoo xam ne ci biir làmb moo koy def cest à ñun combat bi tiiruñ ci. c'est parce que kii xam nañ ko bu baax gars yi ñoo ko jàppee comédien de. mais comédien de. bu ma feeñal mu naan lan. Ah. bu ma feeñal. waaw <laughs> mhm. bëre mu ngi daan damay combat ñu dañ ciy jàpp. dëgg la suñu gars la. saa boo amee combat ñëw wax ñu ko. Mhm. dañuy def luñ mën ak luñ mënul. dëgg la te même combat nii nii. Mhm. dañ ciy jàpp parce que dañu bëgg ñu mu dem Dubaï. ànd ak moom dem Dubaay. waaw comme ñun dañuy voyager ak moom fekk ko Dubaay. non de moom <laughs> ñu ànd ak yow. loolu ànd ak góor a. waaw yow góor a ñu dañuy daan dem Dubaay. yow de moom. yow góor a neex nga de. <laughs> mais maa ngi woy ànd. waaw yow. yow man yow ànduñu de sa waay am naa ñu ma àndal. <laughs> góor a toog la mais awa yow àndu Dubaay. waaw gëmal yàlla na. mais bu demee yàlla may la ndam. waaw amiin ñu dem Dubaay feete ko. bul wax ñu dem ma dem. yow demoo de bul juum yow bokkoo yow. bu yow di dem awa yàlla na yàlla may ndam. waaw amiin. ñu dem Dubaay feete woo man ak yow. ma dem Dubaay grand salle kontaan nañu ñu ngi bu baax. awa champion la. xam naa patron booy lay. Mhm. Ibnu lay. waaw ak maam Cheikh. waaw ñoom gars yooyu yëpp xam na leen foofu laa ko xamee sama waay la nag. mais est-ce que moom mécanicien bu qualifié la. non aay na moom wax dëgg. pièces yi muy jënd xam na ko. xam na ko bu baax ku ñeme ku ñeme engagement la. Mhm. ñeme na ko lool. Mhm. mais am Amathia terrain arrière xam nga leen. yii koy yëpp la xam. incha allah li laaj yi moom du laaj. du laaj man may liggéey mécanicien kii mooy jaay bagage ndax ay jugee waaw waaw keroog jugee di jënd ko kii mooy jaay lépp damay bañ indi la sama oto nga yàqu yow amoo dara kan moom nga xur mbege nga waaye ah, la suñu lépp la mhm. moo tax ba nga ñëwee fii man la faa ñu ñëw fii kii sama patron ñun ñëpp fii la jëndee mhm. waaw ñun dañuy ñëw mu may ñu sax bagage loolu amu problème nit ku baax la yàlla na ko yàlla defal jàmm waaw may ko gudd fan ak yéen bu qualifié la mhm. nekkul mécanicien yu xot dabb ni dafa dafa dafa nekk ci làmb ji rek bàyyi mécanique mhm. ma ngi ci mécanique ba léegi mhm. tey soo ko doon conseillé ci ci soo ko yokk waaw mu gën a góorgóorlu ci làmb ji rek bañ a bàyyi mécanique bi continue loolu la so amee combat dootul liggéey. bu amee combat. dootul liggéey dootul léegi laa ko wax ne ko tural ma moteur bi mu ne da nga a teel ma tax. waaw mais man liggéeyu ma damaa liggéey ba waaj. waaw liggéeyu ma tey. yow war ngaa seexlu huile mais damaa sangu ba pare. yow xëpp ndox nga ko sangu waaw man du sangu. loolu loolu baju ne kii daal liñ koy ñaanal yàlla bàyyi ko fi. may ko gudd fan ak yéen. waaw moom moom xamante nañ man bi ma fi jënd bagaas lu ndaw laa. ba nii léegi man maa sax ñëwal sama bop du ma woo du ma woo man moom xam na samay patron yëpp. waaw fii la ñuy jëndee yàlla na ko yàlla defal jàmm daal. moo tax ma indi la fii dama ne la balaa ñoo dem fenn. ñu fii waaw waaw. incha allah. waaw gaay poche biir lay denc amul dara. accident yàlla génne. barki yàlla mille francs yi lañ ma fi may. kan ma ko wax. <laughs> yow mii nag yéen a war a bëri. yéen ñaar yéen a war a du ma bëri yooyu. kan ñàkk daa ñaaw. nekk daa ñaaw barki yàlla mer mer la faana may ragal mu dóor lu nga waaj waaw moo tax duñ bëre nag non non do faran bu Kira xool ma neex sa waay bu ma xool ma xool ma neex do faran xool ma bu la bisee téye nga xam ne doo tërëm kii ma lamb ji paay dañ cee dal kii ma lay do boo ma tey combat de may booy añ togg añ togg añ del togg añ del togg añ non del togg añ ndax booy dañuy xëy ba ngoon jot ñu ne sa kër ba ba jot mooy del togg añ del togg añ ba nga lu yomb trop del togg añ voilà jox ñun keroog salaamaaleykum. une tonne ceeb lay jox yow ana une tonne ceeb. une tonne xanaa nga ko jaay. une tonne ban. abaa jox yow yaa ma ko jox. xanaa nga ko jaay. abaa joxuloo ko. abaa bu ma ko joxee pour añu kese la. pour pour suñu waa kër la du pour. une tonne dañ ko mën a lekk. une tonne xam nga ñaar saako. Ah. vingt saako. léegi noo ko def ñaata saako. 40 saako may jënd naa. mooy yow yow sax di nga de. 40 saako laa ko jënd daa ko suñ ko. waaye yow. na yow kese yaa ko lekk. ceeb bi xaafoo ci yow kese loo lekk. muy xaafoo comme comme dagg ci dara quoi. denc pour yow non non daggoo ci dara daggoo ci dara yow pour yow. wallaay dagg waaw yow sa sa ceeb man sa lekk. américain nga laa la wax. waaw gisuma la. jaa mais seen ko ngeen dajal. ah waaw. muy daw nit ñi lu muy dawee. amul askan wi. kañam laa ni mu may askan waa ngi nii de. booy du ma Amady yaa wër. saa waay bayoon ne ko. dafa nànk rek am na lu ma yëg. lan la Salba am na lu ma yëg. ñaareel bu muy wax bi si suuf yëg naa ko. man eh. sax nga loolu. kii lu muy def der nga. demal sa moto bu yàgg boobu. sa yoon nekku si ba ma. may ma sama duñ mës a déggoo demal sa yoon. ah baax rek. kat abaa ma jox du pour añ. waaye non mais yaa ma di toogum. waaw man dama leen mën a suural yaay essa jaal bi rëy na loox ci amul léegi nag <laughs> ay bàyyi nga yaa ngi rek a yow kon amoo bëñ nag. waaw bàyyi nga ma nag léegi de. non baax ma la. ana waa Gaale. ñu ngi fa ana Elas. ñu ngi fa. moo si jàmm. mu ngi si jàmm léegi yaa ngi si biis. waaw maa ngi si biis waaw mooy yoon nekk si rek. naa ko posé mais dama jox la ma ko posé. yoruma <laughs> kaay Omar fee ne yoruma. maa ngi ni seen la mais dama jaay pomme vrin. pomme bi baaxul mu woo ma téléphone bi baaxul ma ne di laaj xaalis ah.

salaam waaw yaa ngi si jaam. kii sama xarit la. keroog ba mu fi ñëwee moom may bokkul ak sax ñeneen ñi. yàlla na yàlla defal jaam. kii sama waay <laughs> sama waay la. Amady sama sama fan ko bëgg nag yàlla xam di ko ñaanal jàmm rek. di ci barke Mouhamed. te xam ne jeune la. Uh-huh. ñu ngi koy séntu daal fu sa sori incha allah. loo gën a neex ci Ama Dia. Ama Dia léppam moom moom mën nga xool rek reeru reetaan. <laughs> da nga la neexul ci Ama Dia. gisuma ko nag gisuma lu ma neexul ci moom. nee nañ daa reew. non ba dafa bëri histoire histoire rek la bëri. Uh-huh. waaw dafa bëri histoire moom. mu jotee ak yow boo jotewut ak moom mu jotee ak yow loolu rek ay sikkam. yow la ma sa problème ba kii day damay tooñ quoi. Ah, yow yow lu see yoon xam problème yow sa bopp nag nañ dem. li mooy ci moom a gedd la mel. yow li kii sa xarit la sa doom day la. kii du sama dara. kii sa doom day la. kii du sama dara. yàlla la yàlla defal doom nay. te loxo bi wow na nag. <laughs> <laughs> ma naas. tawfiq. yaa kuul ku fi ne man kay nekkuma fi borom biir baa ni na wax kii mooy sama waay moom laa fi seet ñay kii kii lu ko lu ko fi alo waaw waaw dooma wàccee ndax duñ bëri cinq cent mille yor naa deux cent mille pour ma may la ko ñu bañ a nga naa ma ay cent mille ndax damaa namm cent mille. waaw bëre wu ma. gratuite bëre wu ma. yow waay ah, doo bàyyi ah. doo bëre doo bëre sa sama waay nii. <laughs> Ah, moo fi indi kii sama xarit la. lu bëri dama ko fii laa ñëw di ko jëndee. su ma fi jëndee chaque jour moo may jox paas. mu ngi nii sama waay sama xarit yàgg nañu. yàlla na ko yàlla defal sama samay combat da si jàpp damay boole na maa ay nit mu may ay yére mu ngi nii sama nit waa yàlla waaw yow yàlla na yàlla defal jàmm dëgg yàlla ba jàppante ba day moom waaw ñàkk ñàkk ñaan nag am benn problème day war dëgg non de waaw loolu la nag ceeb mu ma ko laaj ceeb mu bañ maa jox jox ceeb mënu maa jox benn saaku ceeb ceeb du pour yow yow rek lekk ñaari kilo. loolu loolu ceeb bi doy la. doy la sa ceebu bopp. da ngay jënd ceebu bopp. mais ji bi ji bi xaaral di waaw dem naa fa. dem nga fa. waaw waaw la kii ñëwee naa fa. Oh. waaw waaw la nekk. nga de yow mu yooy mi. Ah, <laughs> Eh, kii bu doo bëre du ma lekk. kii suñ doo bëre. waaw jarul may lekk jarul may eh, naan mais waxuñ la ma damaa faale buusi. waxuñ ceeb la waxuñ yi. ceeb la ceeb nga jox ceeb amul nag. Ah, waaw yoruma ceeb ah barke yàlla du ma toog. ah une tonne ceeb ngeen doo toog. une tonne bi ah, ceeb loolu dañ ma ko may te yàlla tax du pour yéen. du ah. pour supporter ya ah, ceeb bi mu ngi suñ ko suñ ko boobu ñëwee doo fa fekk doo ci lekk dañ dem yow bu ñu doon bëree doo am yër bëtu yërmande si man saay mënuma la da ngaa jàpp ni maa la mën mais mënuma yaa ma mën nag eh, père yaa si jàmm yow lay woo. police abat. bee oto police. damay sot waaw père yow naqari nga déedéet bi. da nga may xool ba may nuyu mais doo wax ak ñëpp bëgg a wax ak man. waaw ça va. dégg nga. waaw doo wax ak ñëpp bëgg a wax ak man. coono waaw. mais nag maa maa ngi lay suivre nag. ah. <laughs> waaw mais jox ma dara ko. <laughs> père yoru. non temps yor na non non. mais yàlla tax ngay wax. am na bi ngay wax da nga daan wax pour par par. Ah,

ndax dama koy suivre moom dañ ma koy moom dañ ma ko doon nettali far ma suivre. waaw bi ma koy suivre ma am lu ma gis lu mu indi si làmb. dafa indi benn va euh, affaire comédie. waaw terewul mi ngi def farataam. dëgg la doonte ne ngi si. Mhm. waaye terewul li mu bëgg def mi ngi koy def ndax mi ngi am fu bëgg dem. Mhm. bon donc loolu moo am solo nit da ngay indi lu bees. lu bees loolu. man mhm. nga see am lu bare. te lu bees loolu lay indi moo tax nit ñi bëgg ko. atelier wu ndax man gis naa ko muy dawal oto wane ni moom mécanicien la. non ba mu arrière daaw am fu mu bëgg mënu dara. mënu dawal. ah bon loolu ma ko. weer kii ci plateau disque na nga ñëw fii. Ah, fii yàgg naa fee ñëw. tax man xaw ma la. ma xamul. parce que bu ma fi ñëw fii fii yëpp aléa bi yëpp dama fiy ñëw. Ah. waaw waaw nag dañ koy féliciter di ko encourager di ko ñaanal yàlla. yàlla yàlla taxawu ko. yéen ñi nga xam ne yéen a nekk tamit di ko jàppale. loo boo siiwee nag bu leen fàtte. ndax ñii ñoom ñii kat ñii jàmbaar lañ de. ñii ñu jël tuuma moo leen fekk. mbëru 100 francs day la ma bàyyi ngay wax rek mais moom mi ngi entraîné yow nga